di sol bari sor lool mu doon caay ju rëy mhm. boo jàngee alxuraan ba mokkal ko moom lañ lay solal nga dem ci am pénc feetu <laughs> boo yeggee dangay laaj dëkk bi ku fi gën a mokkal alxuraan ah sëñ Mamour Mbacke de ku mën alxuraan la nga ni woo leen ko mu dikk mhm. bu dikkee nga ni ko bindal roba roba mooy benn isib alxuraan juróom benn fukki isib la mhm. benn isib bi boo ko xaajee ñeenti xaaj mooy roba sëñ Mamour bind roba bu bindee roba bu ci yàqee kaang ma ñëwoon sol caaya ya bi muy ñëw nag ñëwut moom kese da ànd ak gaay yor ay dënd mhm. ay dënd daal mhm. bu ko defee moom day corriger li meneen kaang mi bind bu ci gisee yàq day jël daaji fët mhm. sotti ko ci aliwa ji jël xalima gi damm ci jël aliwa ji sànni ko ca ñag ba daal di def nii bu defee nii rek gaay yi daal di bàkk galañ bi ñuy tëgg mooy rëppeelu nga del bind gestu mbaa nga dëkke nafar rëppeelu nga del bind gestu mbaa nga dëkke nafar mhm. kaag ma départ ak caayam yu rëy ya loolu lay fecc mhm. foofu la alxuraan tolloon mhm. ba alxuraan xëy mer ne ñi ma mokkal ak ni ma yàlla fonk di ma def nii ndax alxuraan du mbindeef sifatun min sifatillaahi la wenn araf ci alxuraan moo gën yonent bi sallallahu alayhi wasallam te bee gën ñëpp wa harfu wahidin min alqurani afdalu min nabiyina adnaan mhm. sëñ Tuubaa nee na wenn araf ci alquran moo gën Mustafa alayhi salaatu wasalaam mhm. ba alquran ne kenn dootuma mokkal Cheikhul Khadim jël engagement ne yàlla alquran mi soo ma ko joxee man dinaa ko sàmm danaa ko aar danaa ko teg fa mu bëgg ñu teg ko fa mhm. alxuraan ni sëñ Tuubaa jël nga engagement de waaye bu ñu ma delloo fowee yomal xiyam du ma la yokk kenn yow mi rek laay layool te man ku ma layool dinaa la yey sëñ Tuubaa ko d'accord naa daal di bind nag moom Seexul Xadim daane wajal bi jaahil muntaqa xayaati riayat alqurani sil ayaati yow yàlla na nga def sama dund muy sponsoriser alquranul karim sama dund gépp na nekk di sponsoriser alquranul karim loolu preuve bi ñëw na mhm. ci Sénégal Ablaye Dia ñëw na ci Serigne Seck mhm. concours alxuraan ji gën a mag ci Sénégal dong ngay Sëñ Tuubaa koy def. Côte d'Ivoire Dubaï Sénégal barki Dembo Ndiaye. concours mondial ci àdduna. Mhm. Touba moo jël deuxième. Mhm. Côte d'Ivoire moo jël première. Mhm. bu dee Sénégal ñoo jël première deuxième troisième. bu dee ba ca ba tey ci mbind mi. ñoo jël première deuxième troisième quatrième ak dixième. kon wajaal bi jaaxil muntaqa xayaati raayat alquraani sil ayaati suñu borom ne ko ah yaa ngoog alxuraan ngoog yaa jël engagement bi mu ne ah mu ne ko demal. Mhm. xam nga lu mu njëkk def Pape mhm. ay lal yu rafet la yattulu teg. Mhm. jël ay mbàjj yu seer boobu nag mbàjjum leen kenn mënu ko am. jël sikki mooy parfum de classe. lay jël bu jëlee mbàjj bi da koy pompe ba mu tooy xepp ak lat mu jël alxuraan mu mu lal ci lal bi. waaw sëñ bi moom lalam bi nar naa nooy di nii la ci bëgg a tëddee. ñëpp di seetaan rek. man yéen moom déglu leen ma rek xamul leen lu may bëgg a def di bu jëlee pompe ba mu jekk mu ne nañ ma jox gaal yi ñu jox ko gaal yi mu tijji jël alxuraan reemale ci kaw ba mu ba mu jekk bu dee jamonoy tàngoor la lu doy war loolu kenn mosu koo dégg ci àdduna ci sëñ Tuubaa lañ ko njëkk a dégg bu dee jamonoy tàngoor day wut ay murit ñu dikk yor ay wantaay di tiim kaamil yi di leen upp bu doon jamono ji ay climatiseur leen di defal yàlla fay na ko ko ba bi ñu demee bay tabaxal sëñ Tuubaa daaray alxuraan yu am climatiseur bu dee jamonoy sedd la sëñ bi day wut ay mbàjj di leen di leen muur waaye mënoon naa yem ci loolu xanaa day sukk ci suuf nag mel ni koy nax gone naan ko yaa kitaabal karim waay waay anta xalili mel ni ko naan ko bur mel bul mer anta xalili wa xabibi wa qablu kuntu tabibi mhm, yow téere bi yàlla bi yaay sama xarit yaay sama soppe te yaay sama médecin. sëñ Tuubaa mooy ku ñëw ci àdduna bu jóge fi kenn mosu koo consulter musta naan ab comprimé musta dem hôpital mosuñ koo ban mosu lépp alxuraan a koy faj. ndax koo xam ne boo musaan di jàpp sëñ bi daan am am faral am xeeti taab yi sëñ Basiru nee na neewo da ko yaboon am na ci boo xam ni day dagg bay nàcc waaye bi jàpp jotee suñ Tuubaa da koy bomb ba nga yaakaar ni lii muy bomb saxut ci yaramam bi ba pare di wax ak moom naan ko bu la neexee dagg bu la neexee nàcc waxtu suñu borom yi mënoo fexe ba ma tiimal ko damay jàpp Cheikh Ahmadou Bamba daal di sukkati ci ne alxuraan ne ko kitaabu ko diini loolu kenn mësu koo dégg mhm. yow téere yàlla bi yaay sama diine sax wa huwa te mooy sama xarit moom alxuraan mhm. wa muuni si man aw ma fu may fréquenté naan naa dem fee comme ni may def bu guddi bu ma toogee ba ak ma ne naa dem Nord Foire kër sëñ Abdou Lahat wala kër sëñ Laatoum sëñ Damaat te ñu toog fa waxtaan déedéet sëñ bi daawul def yooyu nee na su ma wéetee rek alxuraan laay wéetlikoo hadaani bihi alhaadi na ma bihi ci alxuraan alhaadi aji ginde ja wa sakkaata sellal nafsi sama bakkan bihi ci alxuraan kitaabuka diini wa wa xilli wa monisee أداني بالأدي ونصيبه سكاي عزيز مهاسس لعبد هسيس قد حلا الأجوم والأربي Sëñ Tuubaa nee na kiréere bi yàlla bi mooy sama diine man Seexul Xaddim way ci nag way doy waar moom Seexul Xaddim papaan nit ñi buñ jaawale de sëñ bi wax na lu leer de danaa ci ñëw nii campagne mhm. ku yor lu baax da nga ko war a defal campagne xam nga léeg sax nga dégg nga dégg ku naan la waa quartier général tey bu ñu invité kii bu ëllëgee ñu invité tarixa bi loolu day déedéet lu baax ku ko yor da nga ko war a campagne dëgg la boo amee sëriñ bu baax da nga ko war a indi fii ci fii fii nga koy indi dëgg la di. cuisine nga koy indi fii. Mhm. wax sa jalooroy sëriñ ak i baax baaxam. Mhm. ñëpp xam ko mën koo topp. am lu baax noonu nga koy def fii nga koy indi yàlla moo tax émission bu riche ngi nii. sëñ Tuubaa dafa campagneal alxuraan dafa dajale ñëpp ne leen euh, lu ngeen bëgg ñu ne ko ñun de yàlla musal ñu rek te muccal ñu lañ bëgg. mu ne man am naa ko ko man. Eh. kañ engagement am naa ko man am naa ko ko man. ah Mbàkke mucc ni jafe mu ne maa ni leen am naa ko ko man kay am naa sëriñ fii boo xam ne ci wet gi mën naa muccal mën naa musale mën naa muccale. ñoo kan la mu ne li qaari il quraani xifsul baaqi wa ismatul baaqi mahal itlaaqi képp kuy jàng alxuraan. yàlla dana la musal dana la muccal te dana la mbaa yàlla mbaa yàlla mooy loo defete du la tax a dem sawara sëñ Moussa Ka nee na jàngkatu Qur'an lu jeng jeng yamal xiyaam kenn du ko ceenee jeng. maanaam mooy kii jàng alquran. kii jàng alquran mooy ki nga xam ne day yor ab jukkeem bu xëyee suba balaa def tara jàng alquran karim. allahu akbar. waaw ku texe na. Hmm. waaw waaw. boo gisee léegi nga gis jàngkat alquran boo xam ne diw ni mu doy waar. gumba bu nee la nañ sànnante rek yow xeer la joggi. xeer mu ray la sax sëñ Moussa Ka ne jàngkatub xuraan lu jéng-jéng yow man xiyaam kenn du ko ceenee jéng alxuraan déedéet mhm. yi bi ñuy yéegee di dem àjjana mooy alxuraan boo ñëwee dañ naan la iqra warqa mhm. mooy escalier waa ngi àjjana nga jëm jàngal te yéeg foo fu li nga mokkal yam rek foofu la sa alxuraan foofu la mooy sa àjjana ñi man benn saar foofaay seen àjjana mhm. ñi man isib foofaay seen àjjana te waa <laughs> rez-de-chaussée étage waa tabatiya daa ngi waaw premier étage. waaye ñeneen day dugg rek a baax de waaye nag àjjana ju la gën a kawe gën laa neex. ñi mokkal kaamilu alxuraan nag moom dañuy dem ba fone ba fa àjjana yam àgg a gratte-ciel ba. foofu la ñuy dëkkee ñoom. nga xam ni ñi dëkkee suuf dañ leen di xool di leen seen di leen ñee bëggoon faa dëkk. Mm. te fañ dëkk alxuraan moo leen fa yóbbu. ku yóbbu jàng ko. ku jàng alxuraan. Mm-hmm. sëñ Tuubaa teg ca ni képp ku bëgg ngërëmul yàlla. Oustaz Assane sëñ tubaa nee na képp ku bëgg a jige yàlla del jàng alxuraan te bul ko fàtte fa man araada al qurba min mawlaahu fal yaqra il quraana laa yansa sëñ tubaa nee na képp ku bëgg ngërëmul yàlla del jàng alxuraan ku sëñ tubaa nee na kuy jàng alxuraan te di ko setantal di nga am ngërëmul yàlla ñun ko bindal moom daa xalima gi da koo jige kayit gi weex tam mën a bind lool nag moom Cheikh Ahmadou Bamba moo tax boo nee bindal rek mu bind sëñ Tuubaa ku bëgg ngërëmul yàlla day jàng alxuraan te murit murit sëñ Tuubaa murit lu mu bëgg lu dul ngërëmul yàlla du murit idil muridu laa yuridu abada xayra rida rahmaani xaysu qasada sëñ Tuubaa neen yow murit bi ku bëgg ngërëmul yàlla ak foo mën a bokk de jàng alxuraan qultu fa man yurid rida rahmaani fal yusbitan tadabbur alquraani muridin bi yeloo su ci laa jëm mm-hmm. lii moom da koo laabire jullit ñëpp mooy ku bëgg ngërëmu yàlla ku bëgg a jige yàlla del jàng alxuraan waaye bu dee ñi ko yaakaar ndigal la leen jox mhm. loolu dañ ko war di waxtaane mhm. sëñ Tuubaa ne ni képp ku ma yaakaar digal naa la ngay jàng alxuraan kullu muridin bi yaluusu fal yu dim tilaawatan li xayri dikrin xadusin ndigal la waaw ndigal la ci murid bu nekk mhm. ñu ne ko kañ lañ koy jàng mu ne digal naa leen yéen ñi ma yaakaar wala simoo tilaawata alquraani fi leyli wa nahaari bil imkaani digal naa leen ngeen di jàng alxuraan guddi ak bëccëg suba ak ngoon bu leen ko jëlal ci barab bu mu leen man di fekk sëñ bi nee na ngeen jàng alxuraan daan ne yéen murit yi nag digal naa murit bu ne bu xëyee lu néew néew néew néew la wax adim tilawatan lidil kitaabi walaw salaasatan min al ahsaabi fii kulli yawmin doona ijraanin kama talabatul ilmi lahu zawun tama nee na boo xëyee lu néew néew na nga jàng ñett isib daan ne bu ko jëlal murit bu xëy Pape Cheikh bu xëyee balaa def yeewu leen day ñëw day jàng ñettam soxna ma mi jàng ñettam amut góor ak jigéen ñëpp ay jàng moo tax ku ci mënta jàng bay ba nga wut ab ustaas ci sa biir kër di ko fay lu ko jar mu lay jàngal alxuraan Assane da day def ay cours à domicile ah Oustaz mi ngi ci yooyu <laughs> jërëjëf waaye nag sëñ Tuubaa nee na ca masaalik lépp lu nit di def di ca fayeeku jàngale alxuraan di ca fayeeku moo ci gën mooy ngën gi mécc kon nag mu murit amul droit xëy suba ba ñu jàng alxuraan sëñ Tuubaa moo ko diglee léegi nag bi mu ko diglee Oustaz Pan mm-hmm. Pape An mm-hmm. dafa am nu mu ko séddalee nu mu séddalee njàng mi njàng mi ñii daf leen digal ñu jàng ñett isib waaw ñii mu digal leen ñuy jàng subu mm-hmm. subu mooy da ngay tàmbulee dimanche dimanche ngay tàmbulee tàmbuli alif laam miim ngay tàmbulee boo jàngee gannaaw fatiha bismillahi rahmaani rahim lal sa sijaada jublu penk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 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون dem ba ci ويستفتون في النساء قل الله يفتن في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم mun la wàcceel ba suba mooy dimanche boo xëyee lundi tàmbalee yaa ayyuha allasina amanu awfu bil xuqoodi uhillat lakum bahimatu lanaami illa maa yutla aleykum gayru muhilli saydi wa antum xurum inna allah yaxkum maa yurid ba ca laqad jaakum rasulum min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminina raufun rahim fa in tawalla فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ñun la wàccal ba suba boo xëyee talaata tàmburee ci bismillahi rahmaani rahim alif laam ree tilka ayatul kitaabil hakim akaana linnaasi xajaban awxaynaa ila rajulin minhum أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لشعر مبين bu demee ba ci ud'u ilaa sabiili rabbika bil hikmati wal maw'izati l hasana wajaadilhum billatii hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabiilihi wa huwa a'lamu bil muhtadiin wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum la huwa xayrun lissabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wala taxzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun inna allaha maa allazina taqaw wallazina hum muxsinuun ñun la wàccal bu suba boo xëy suba tàmbalee ti ci àllarba ji subhaanaalladi asra al isra ba jeexal ci suuratu furxaan noonu nga koy toppee suuratul furxaan ngay tàmbalee taasin miim ba ca xaaf wal quraan il majiid nga tàmbalee xaaf wa quraan saat wal quraan di zikri boo tàmbalee saat wal quraan di zikri ba ci xaaf wal quraan il majiid boo tàmbalee xaaf wal quraan il majiid ba ci minal jinnati wan naasi muy samedi kaamil bi jeex sëñ Bass tegal foofu sa la barkala tabaarakallaahu am na solo macha allah sëriñ beek alxuraan ma nga ca. ca Oustaz Assane mhm. wala Oustaz ñu dugal sëñ Bamba mhm.